si wàccaayub ñëwub njiitu réew mi si campagne électorale ba muy amal si bañeeru benn bokk yaakaar di koy tàmbale si département de Mbacké Abdou Lahad Seck Sadaga di député moom de moo doon président réunion zone bi mu jiite ci ba naka noonee nag la présenté ci réunion bi ñaari militante di wuyo ci Mame Diarra Djigal ak Ndeye Gadiaga bokkoon ci parti Teranga Sénégal bi jàppale Ousmane Sonko ci Touba. tey jii nag Khadim Sylla dafa waxoon ne moo gone ñu ne dañoo responsable yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale pour ñu préparer teertu bi mu am ci ay gan yoo xam ne dañoo jóge ci Abdou ñaan mi nga xam ne mooy jàppale Sonko ànd ak Sonko ñu bàyyi ko tey ñëw jàppale président de la république. man fi ma nekkoon mooy ci euh, président Abdou Abdoulaye Niane. bu moom mii di leader bi nag ni yemul foofu de donte sax nag accident bi mu amoon ci assemblée nationale ba amoon ci ay dam-damu taxoon mu nekkoon ci lalu hôpitalam loolee de jàpp na ni du dara. lu dul ndogalub yàlla waaye nag du ma sa bàyyi ndax Macky Sall jaral na ko ko moo waral mu ni tàmbali na sax ndax bokk gis-gis jël na fa ay militant waaye nag mu ni mi ngi waxtaan ak ay karimis te jàpp na nu ni dinañ ñëw jamono ji jàppale ko. mooy man aw ba Macky fii ci kër gi jur naa doom tudde ko jur naa doom tudde ko Marème Faye Sall bu ma fekkee ne damay jàppale président de la république ba mu egsi fii ñu ne as feebar su ndaw moom ma dal te yàlla rek moom ma ko teg di am nattu danaa doyloo yàlla téye ko ba noppi nag dem jàppale ju ko du ma toog de fépp lay dem fan yii yëpp maa ngi def ay sortie di génn loolu nag. am nañ ci ay programme yu bari noonu lañ ko defee ci Pape Diop am na fi fi mu toll nii may wax ak yow karimis yi ñu bari juboo nañ ma ak ñoom bis bu rafet bis dañuy xaar rek président def meeting ba dem ñu jóg nag pour dëkk bi nooy népp loolu président wax démb ne Touba ngay nooy loolu leer la parce que suñu taxawaay matt na ko ndaje bii nag mbooleem ay responsable am yu tas ci biir Touba ñëwoon nañu ci réunion bi nga xamante ni Khadim Silla moo ko coordonné ci kër honorable député Abdoulaye Seck Sadaga moom sax xaadim Silla jot naa yëkkati ay xeex sànni ko kujje gi jamono ji nag Touba responsable benn bokk yaakaar yi di waajal ñëwub njiitu réew mi président Macky Sall ba moo waral ñu ngi ci réglage yu mujj yi ndaxte dimanche lañuy ñuy ubbee campagne bi ci Mbàkke yi